Fatou Kidita la euh, directrice exécutive de SOS Sahel Sénégal euh, ndaje tey bi vraiment euh, am na solo parce que dafa ñëw pour lancer lu bees pour vraiment taxawal lu bees loo xam ne du Sénégal rek moo ko moom mais Sénégal ak yeneen réew bu ngeen gisee donc sunu waa Burkina yi ñu ngi fi c'est vraiment ñu SOS Sahel ku ne xam nañu ci appuyer. te les collectivités territoriales mais sur les populations sahéliennes de manière générale ci lépp luy projet de développement yàgg nañ ko fi def depuis 40 ans dégg ngeen sànq président bi di ko wax président SOSL Sénégal ñu ngi liggéey ci loolu euh, SOSL Sénégal dañ ko créé yàgg na euh, président Léopold Sédar Senghor moo ko créé woon booba ci temps sécheresse ak euh, i xewoon année 70 ñu doon ñëw donc di lutter à côté des états pour donc jàppale leen ci xeexu bekkoor boobu ak di apporter aide alimentaire mais dañu dem ba évoluer di financer ay projet de développement mais ci kaw financement boobu dañ daan financer te du ñu woon laaj benn contrepartie ñi moom projet yi maanaam daawuñu woon apporter benn euh, contrepartie ci financement bi lépp SOSL moo ko doon def ak ay partenaires am léegi na dañoo dem ba mobilisation financement pour projet de développement ku ne xam ne dafa changer crise mondial bi secteur yëpp la laal rawatina financement projet yi léegi tey mu ànd ñu tey ñu dem ba ñun xalaat concept bu bees muy concept je t'accompagne concept boo xam ne la dafay créer ay plateforme boo xam ne acteurs yëpp ñi ngi ci biir ñi mën a jàppale ci financement ñi ngi ci biir ñi mën a jàppale ci technique bi ñi ngi ci biir parce que fàtte naa leen ko wax mais euh, euh, service technique yi yëpp ñi ngi fi woon muy ARD yi di service technique euh, sectoriel yi nekk ci région yi mais aussi les porteurs de projet ñi nga xam ne commune yi lay doon les collectivités territoriales mën na doon ay association de développement mën na doon ay direction sectorielle donc loolu lu tax ñu créer concept bi mooy dañu dem ba form financement bi dafa changé léegi financement bi dañu naan la 80 pour cent laa la jox mobiliser 20 pour cent yi seetal noo koy mobiliser léegi nag bu njëkkoon nga xam ne vraiment euh, financement euh, euh, mobilisation financière dafa yomboon ñun ñoo doon def lépp ñun SOS Sahel ak suñuy partenaire SOS Sahel Luxembourg SOS Sénégal ak sunuy partenaire comme Rotary nga xam ne am na représentant fii ak yeneen fondation léegi nag tey ji dañoo dem ba ne ñi nga xam ne ñoo moom projet il faut ñu dugal ci seen loxo léegi tey jii bu doon ñun dañ doon de 20 pour cent kii nga xam ne moom moom projet bi commune bi ko moom wala association bi ko mun andi 10 pour cent ñun ñu andi financement bi nga xam ne moom lañ ko war a jox loolu moo andi concept bi ñu taxawal ko ñëpp nag ñu ngi ci biir parce que concept bi yemul ci financement bi ngi dem tam ci technique bi surtout technique bi donc réseau de compétences dañuy mettre en place service technique sectoriel yi bokk ci ay personnes ressources bokk ci structure de recherche ñu ngi fi ISRA Sénéra Bambey ñëw na ak universitaires yi pour accompagner le porteurs de projet à formuler maanaam ñu ñu tabax seen projet ndax loolu liggéey la tamit liggéey bu metti la liggéey bu yàgg la donc au lieu ñuy dem di fay ay ressources pour ñu defal leen ko ñooñu bu bokkee ci réseau bi donc dinañ mën a yomba liggéey boobu loolu mooy li nga xam ne mooy vraiment réseau Euh, je t'accompagne wala plateforme je t'accompagne mu am nag benn boo xam ne ko taxawal fii au sud muy dans la zone sahélienne mu am bu ñuy taxawal tam au nord euh, Luxembourg moom moo yor donc coordination bi foofu. bénéficiaire c'est juste que tout le monde est bénéficiaire euh, tous les collectivités territoriales yëpp mën nañu ci ñu wu woowuñu fi ñëpp nag dix communes la ñu woo parce que loo gis da ngay dem par étape. donc mën nañu étape pilote lañ nekk dañoo woo dix communes yoo xam ne moom mën nañ ne ñooy représenté commune Sénégal yëpp mais tey ji ku nekk commune euh, Tambacounda wala Ziguinchor bu ko neexee demandé su fekkee ne respecté na condition yi ñu yi ñu teg te condition yooyu moom lañu ñu wax war waxtaane tey waxtaane ko suba mais donc dix communes yooyu nga xam ne ñoom la ñu woo ñun nag dañoo seet li nga xam ne nit ki dangay def li nga xam ne foofu nga mën a yem en attendant ci trois régions la ñu nekk Thiès Diourbel Fatick fa lañ ñu woo ci 10 commune yoo xam ne ñooy représenté yeneen communes yëpp pour que ñoom ñu mën a donc bu dee am nañ ay idée de projet ñu mën ko donc soumettre ñu accompagner leen ci lii ci des yëpp pour ñu am seen projet mais yemuñu foofu du commune kese moo mën a am projet association de développement et de producteur mën na am projet direction sectorielle wax nañ ko mën na am projet loolu conditionnalité yooyu nag moom la ñuy waxtaanee diggante tey ak suba ñoom nu def pour mën a jàpp ci projet yi ak nan la ñuy def ba projet bi ñu mën koo jàpp ci ministère bi mooy les conditions d'éligibilité je m'appelle Modou Ndiaye je suis le maire de la commune de Baba Garage c'est dans département de Bambey bon mi ngi ñëw Baba Garage depuis 2012 euh, ñu liggéey ak ñun ci fànn yu bëree bëri bi mu ñëwee li mu njëkk a def moo di fexe organiser jigéen ñi euh, jéem leen a former encadrer leen ba xamal leen lu bëree bëri ci wàllu euh, reforestation ci wàllu environnement lu ci bëri bi ñu defee loolu ba noppi aussi ñu identifier ay activités yi ñu ci njëkk identifier moo di euh, lu mel ni ay pépinière parce que ku bëgg reboiser aussi il faut nga am pépinière bi ñu ñëwee jàppale leen jigéen ñi ñu installé ay pépinière ci commune bi pépinière yooyu bi ñu ko installé ba noppi aussi jàpp nañ leen aussi pour ñu def reboisement reboisement boobu aussi bi ñu koy def aussi dina leen gunge ci yeneen activités yoo xam ne tax ñu gën a sawar activité mooy lan fexe nan ban am ay moulin à may leen ko ñu di ko euh, di ci am euh, koom am nañ aussi ay poulailler yoo xam ni tabaxal nañ leen ko équipé leen ko ñu koy jëfandikoo aussi di ci am ay koom-koom donc euh, wàllu ndox mi aussi fexe nañ ba ñi nga xam ne soxla na ndox aussi ci war a bay ñu defal leen ay forage ñu ci bay euh, bu loolu jàllee aussi wàllu mbale aussi ñu ngi leen ci jàppale ndax toujours environnement la ci wàllu woowu aussi fexe nañu ba euh, organiser jigéen ñi wutal leen matériel jàngal leen xelal leen ba fi mu toll ñu ngi war a jublu ci loolu ndax fekkoon na sax benn ONG bu ñuy wax les Végéos d'or une communauté commune des VGO en France defoon fa ay investissement mais ñoom bi ñëwee ñoo ko complété gën leen a ba fi mu toll ñu ngi jëm ci wàllu woowu ndax tabax bi tabax nañ ko ba noppi centre tabax nañ ko ba noppi équipé dañ ko bon formé nañu jigéen ñi ñu ngi waaj a commencé euh, gestion des des déchets bi. bon 20 pour cent yi du ñu déranger ndax déjà ñun xam nañ ko bu njëkkoon te daawuñ ci def lu bëri kon bu ñëwaatee nii cette fois ci da def ñun pare nañ pour def phase bi ñu nekk ñu avant que réunion bi commencé ñun xamal nañu loolu ba phase bi ñuy déroulé actuellement ñun signé nañ benn convention ak ñoom boo xam ni euh, les 10 pour cent ñun dañ ko war a verser